kilifa gi ñu ngi lay nuyu. Hmm? ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay di fay. bi naka la. Demba Diaw ah. Papa Demba tey ñu ñëw file ci Kër ñëw seet si leen gannaaw accident bu metti bi nga xam ne moo am ni ki démb fale ca ah, côté Ndulo bi ngeen am kenn koo xamante ni daal dina ciy bokk ndax mën nga ñu ñëwalaat ci ki nga xam ne moo bokkoon ci famille boobu bokk ci accident bi naka la tudd ak yow lan nga ci moom. Hmm. ñu ngi leen di ziar di leen masawu déplacement bi di leen gërëm di leen ñaanal tawfiix ak chaîne bi yàlla na la yàlla wàcce barke quoi di leen biral ni accident bi moom ni mu dikkee bon moi je vis au Dakar quoi ay côté 16h lañ moo téléphone annoncé ma décès bi ni ma faama daf ci bokk quoi sunu doom jabaru grand frère la mooy suñu taw kër quoi mooy sam taw papa bon mu nekkoon la ko soxna su baax sax nga xam ni ak mbaaxam foo ko takk dépassé na ko. bon. Fama mi nga xam ne ma bokk ci accident bi ndax mën nga ñu wax ay atam ci ñaata la toll. war na woon am ay normalement ay soixante treize ans soixante dix gannaaw ba ñu la ko jaalee ma sawul ma ne gannaaw ba ñu la ko jaalee ma sawula ci tiis bi nga xamante ni moom la ñu daal di bokk ñu bàyyi la rek nga joxe ay kàdduy seede ci Adja mi nga xam ne tey moom moo fi daal di bàyyee ko. Adja Fama dafa nekkoon maanaam kenn si ñun. plus particulièrement man nga xam ni sama xarit la woon ba toll na benn moment ma may ko njëkkee donc xam kooku relation bu baax rek moo ko mën a indi bi ko yàlla defee sunu mag di sëy ak moom mu nekk ci kër gi ba ni ko yàlla jëlee mosuma koo gis mu def nit lu bon wala mu wax ko ba mu jéem ko si moom jullit laa ko xamale bëgg diine bëgg doomu adama yi yor pusoom di ñëw conflit bu am diggante famille mu jël pusoom di ñëw jël alalam di ci def ah di boole nit ñi pour ñu ànd pas plus tard que avant-hier elle pour que ñu célébrer màggal bi fii ko a lieu que ñuy dem ba Touba parce que day sori ndekete yow moom du ko fekk pour vous ko que bon kër Cheikh gépp maanaam quartier bi ñu dëkk nii parmi les neuf yi dee yëpp fi lañ dee quoi donc da ngay tourné dëj fii dëj fii dëj fii dëj fii ñoom ñëpp nag yàlla yàlla xaral leen àjjana am nañ si ñoom yaakaar ko parce que benn famille rek booy xool quoi parce que moom dafa demoon Touba pour jaale ji au retour lañu yàlla def du gën. dafa demoon Touba ngir jaale. jaale ji woon quoi. mbokk bu wàññeeku Touba. benn mbokk bu wàññeeku woon ñu dem jaale ji ko en famille. au retour la leen camion bi mbëkk ñoom ñëpp ñu faatu kenn wàll yi quoi je veux dire bon rescapé yi yàlla rek moo si des bu buñ dundee dootul nekk doomu adama yu am njariñ dal mais lépp dogalu suñu borom la ñu ngi koy sant yàlla te di am yaakaar si ñoom parce que vraiment ñoo def lu bon mosuñu koo wax mosuñu ko yàlla na yàlla xarit ajana ñoom ñëpp ñoom ñu fi jóge vraiment yàlla taas ñu si seen barke ko barke nañu ne ma am solo solo. ndax xam ngeen ñaata nit aussi ñoo si am ay gaañu gaañu ci accident bi ñoo nekk hôpital jamono yi. ma ñi ma ci xam mooy sunu voisins yi il y bon enfin ñu ñu bokk même famille ñeneen ñi réanimation ñeneen ñi am ay dama dam dam am nañ suñu transfert yóbbu ko tuuba donc noonu daal affaire bi demee quoi pour le moment quoi. Hmm? Ah, Adja moom jot na yegg hôpital wala fu ñu ko kii. il est décédé sur le coup quoi. Hmm. Adja Fama il est décédé sur le coup avant d'aller au tey boo amoon message booy lancé jëmale ko ci chauffeur yi ngir ñu bàyyi ci xel ndax màggal bi tamit li si des bëriwul te accident yi saa bu ñëwee rek faat bakkan wala mu am ñu si am ay gaañu gaañu tey message bi lan lay doon. li ma mën a biral daal si accident yi que vraiment autorité yi nañ ci jël ay mesures puisque en bu may départ Dakar si guddi gi vers vingt et une di ñëw Diourbel camions yi nekk suñu def sa kanam yëpp amu ci benn bam feu ci comme quoi yow da nga dem ba jub ko loo xamee ni oto mi ngi daw ou soo nekkul un bon chauffeur da ngay daw bu dugg suuf camion bi donc les gendarmes là et les forces de l'ordre ils sont puisque oto bu amul feu mënoo ko bàyyi muy daw guddi xaw ma lan nu mu demee noonu bañ leen di bàyyi mu dem mais ñoom responsabilité bi am nañ ci pas de responsabilité donc j'ai parlé yooyu fort war nañ xool autorité yi ñu baax ak ñoom ñu jéem a bàyyi loolu ñuy def quoi oto bu nekkul en règle nañ ko garé point mais jàpp nit ñi di rey comme ça comme ay muus. vraiment il est temps qu'on arrête quoi oui amiin yàlla nañu yàlla dolli amiin amiin amiin amiin